daje bi d'abord dajalé euh jigen ñi ak goor ñi mag ñi ak ndaw ñi nga xamanteni li leen taxa li leen naka ba li nga euh, suñu dëkk ne je euh, jël mbiru politique ñi ñi fi o tay amna ñu xamné sax ñun politique mais li ñu gëna intéressé ce qu'on appelle l'action citoyenne bi nga xamanteni parachèvement l'action politique donc politique moy naka la ñuy naka ngay gën sa loxo ci li nga xamante moy euh, euh manam avancement sa dëkk. lolu nak gis nañu tay amna ay ndaw amna ay mak amna ay góor ay jigéen yoo ni heure bu ñu sa suba suñu yeewoo ci loolu le xalaat lañ fi ñu wax ñu ku ci nekk naka nga li ngay def lutax nga def ko ak surtout lan nga ci lan nga comme euh, na association bari na ay synergie mais li ci ëpp solo euh, ngi ñaan son excellence monsieur le président de monsieur Macky nga au niveau du département mi ngi def lu am solo euh, mi nouvelle ville de Diamniadio mais aussi bu mu li nga l'arrière pays maanaam euh, le vieux Rufisque tëngéej bi nga xamante ni tey ñun mooy suñu tiitër tëngéej bi nga xamante ni tey moom moo tax ñu naan tëngéej mooy tëngéej bi nga xamante ni bokkoon na si ñeenti communes yi nga xam ne euh, fii ci Sénégal ñoom ñoo njëkk nekk ay loolu nag warul am nax saay maanaam njeexital bi mooy lan mooy dañu war a gën a gestu ci bépp programme bu ñu def ci état Sénégal tëngéej dafa war a nekk central loolu nag aussi pour mu nekk il faut que euh, ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy les porte-voix de Rufisque bëri nañ macha allah mais aussi loo gis am na ñu ci seppi ñooñu dañu bëgg état bi gën leen manam jox bop ñu ngi ñaan nak président de la République son excellence monsieur Macky Sall mi ngi mi ngi maanaam concevoir ay liste au niveau départemental mais aussi au niveau national ñu ngi koy ñaan mu gëna a gestu jigéen ñi nga xamanteni ni ñoo nekk ci département bi ñoom ñoo nek ci vieille cité Rufisque ak góor ñi ñu bool leen ci liste yi mais aussi cadre yi ñu yokk ko ndax aussi comme ni ngeen ko xamé rek euh dëkk bu amé ay cadre yu doy bu amee ñi nga xamante ni ñooy ay porte étendard yu doy maanaam euh, lép loo xamante nii dafay wékku ci euh, jëmale ko kanam dafay yomb loolu nag dafa laaj jàppale ndax suuf bu sutantee dañ koo jal ñu ngi ñaan nag président parce que ñun moom la ñu gëm moom la ñuy liggéeyal fii ci département bi ñu ngi koy ñaan te mu gëstuñu gën a xalaat ne Rufisque aussi amal na ko njariñ moom tamit et surtout que nag c'est le président de tous les Sénégalais ñu ngi koy ñaan mu fàtte Tëngéej